baax euh, ci possibilité bi ngeen ñu may itam pour ñu mën a éclaircir les Sénégalais li nga xamante ne moo am en service muy affaire bu doy muy affaire bu tiis muy affaire bu naqari boo xamante ne dal na le monde artisanal wax yaakaar naa ne bu fekkente ne ñun ay jeunes lañ yoo xamante ne dañoo am lu ñu représenté ci réew mi nekk ay xale jàng ci am xam-xam nekk des ingénieurs dans ce pays ñu casé wu ba pare. ñu daal di ñuy génne foofu ne dañuy recaser pour déguerpir ñu. je pense que li ñuy wax naan dañ ñoo defal ay garage ak dañ ñoo recaser yooyu yëpp yaakaar naa ne nit boo koy jëlee ci benn bërëb war ngaa préparer bërëb bi nga ko yóbbu ba pare or que loolu lépp amu ci. ñun le premier lañ xëy vers quatre heures du matin l'ancien piste est entouré par de la police et la gendarmerie ak GIGN. muy ñoo xamante ne yaakaar naa ne booy dem ci sax ci ñoo xamante ne sa population la am na loo xamante ne yaakaar naa waroo ko déployer ci matériel ak police ak gendarmerie pour ak foofu biñ ñëwee itam ñun am nañ la maturité aussi ndax le monde artisanal defa nekk loo xamante ne ay corps yu am discipline lañ ay corps yoo xamante ne bu ñëpp meloon ñoom Sénégal avancé ndax bu fekkente ne dangaa fekk des centaines de millions nga koy saccager seeni boroom toog di xool di gis nga yàq ñu am la discipline bàyyi la xeexuñu sànniwuñu xeer defuñu dara. Ah, ñoo faa def avertir nañ leen quand même. non man avertiruñ man ndax man je suis là-bas le porte-parole de de de des trois 3AP kon yaakaar naa ne bu fekkente ne wan mi du am valeur u 6 foofu ñu may jox sommation ma bañ koo jël. wala ñu may jox sommation ma bàyyi sama alal bu ñu koy fekk foofu di ko yàq ñun joxuñu sommation bu ñuy jox sommation it ay quelques personnes lañ ko jox ñoo xamante ne liggéey bi concerné wu leen ce sont des gens qui ont plus de soixante quinze ans quatre vingt ans yoo xamante ne ñoom la un promoteur boo xamante ne il s'appelle Bambayat il dirige le groupe Honoria Group moom bi muy ñëw foofu dafa ñëw woo woo ay paa yoo xamante ne liggéeyatuñu amuñu benn matériel ci ancien piste amuñu benn caisse à outils ci ancien piste boo gisee ñooñu nga wax ak ñoom ne leen dinaa la jox proposition de terrain boo xamante ne dinaa la jox deux cent mille kooku amul atelier amul leen lu mu yëkkati kooku de ñooñu ñoo nangu dem def loolu te ci biir loolu itam ñoo ñu ñoo yor seeni téléphone di woo ay nit ci biir ancien piste bi nan la kaay dem fee nga jël deux cent mille ak terrain te ña ñuy woo di leen ko wax itam xam nañ ils n'ont pas la responsabilité ndax bu fekkente ne man ci droit li ñuy wax ci Sénégal. Hmm. dañ ne nit bu lay jëlee fenn ci suuf si mu lay jëlee day koy moom te suuf si mu lay yóbbu itam moo koy moom moom booy xool suuf si muy yóbbu nit ñi mu ngi nekk Sébi Ponti te foofu c'est un lieu d'eau te hivernage bi dafa renversé wu en Afrique bi ñuy gën a dem fii mu toll nii ci kanam ndox mi day gën a bari muy foo xamante ne boo fa wàccee itam sa tànk bi day surux ci bànn bi il n'est pas aménagé. amul dara amul ndox amul dara te je pense que la mécanique d'aujourd'hui ak le monde artisanal mënul nekk fenn foo xamante ne amul courant boo demee ci lieu bi itam y a des hautes yoo xamante ne dañoo traversé te loolu du sécurité aussi kon je pense que te foofu itam dañ koo joxoon le ministère de l'élevage pour un abattoir décret bi mu ngi nii c'est le numéro 2006 475 4 1475 en date du 27 septembre 2016 kon suuf soosu moomu ko titre yi nga xamante ne da koo jox nit ñi pour euh, ay terrain yaakaar naa boo boo boo liiree lii c'est pas du respect nit di ko jox nit ndax euh, dañ la ne fii ak deux mois dañ koy régulariser te boo ko régulariser wul moomatoo ko te ci suuf amul date booy xool ci suuf a suuf fi mu waroon def la date laawuñ commence defu ko ci booy xool am na chèque yoo xamante ne le promoteur bi nga xamante ne moo programmé loolu nooy joxe ay nit yoo ay chèques yoo xamante ne amul signature ci départ bi. kon daal da nga bëgg a wax ay naxaate la. ay naxaate la to le monde artisanat dama leen ne ouvrier démb ak ouvrier tey bokkul ndax ñun ñii dañoo nekk ay xele yoo xamante ne université bii nga xamante ne ñu baal ma ci wax bi ñu ngi fay def xaalis bu dul jeex fii lañ ko taal bi ci gam dara kam te ko taal dañoo dañoo yaakaar ne ñoo war a yor Sénégal suba te teewul ñu ngi koy defaraat. ñun fii lañ ñu fekk dans l'ancien piste aux alentours vers quatre heures du matin encombré l'ancien piste yàq sunuy bagages yàq sunu alal ñu koy xool te benn lacrymogène tàkku fa. d'accord kon je pense que il est temps aussi l'État du Sénégal xool ci li muy def depuis le premier nga xañ de pères de famille xëyatuñu gontuñu xamuñu fu ñu jëm amuñu fu ñu dem nga toog di leen seetaan noonu aux alentours lu ne mën na cee xew suba. ndax nit ñi dinañ lekk dinañ naan nit mën nga koo xañ lépp ba mu nekk fu muy suturloo ak fu muy jëlee lu muy lekk loolu je pense que nit ku ne am na droit boobu ci réew mi. dinañ dinañ ci ñëw.